bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo nee na soxla woo farata di leen matal moo war a jiitu lépp bo farata yi jàllee sunna yi door a ñëw ak naafila yi abdul xaadir jaylaani radiallahu taala anhu moo ko wax nee ko dul def ab dof te dee su ko man nag maa wax li njëkk war ku bëgg a àgg ci yàlla subhanahu wa taala mooy bàyyi ak tànnal tey takkoo lañu ko tànnal loolu mi ngi ci diwaanu jasaw sakkoor xotowu téeméer ak ñett muy cent trois wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu laaw maxtaara lahu nee na dee leen jublu seen borom subhanahu wa taala tey sori lépp lu ñu leen tànnalul tey takkoog lañu leen tànnal kon da ngeen àgg ci moom man mi laata may dem ci géej gi bari na yu ma daan gàllankoor waaye bi ma jubloo saa boroom fas yéene sànni lépp lu may gàllankoor ci moom la ma àggale bu wér ci moom takkaayal ma takkaay goo xam ni tax na ma fàtte lépp lu ma dajeeloon bokk na ci gàllankoor yee bokk na ci gàllankoor yooyee sàkku mbir ngir lu dul yàlla subhanahu wa taala ak japp ni yalla lottu na ci menn mbir mu mu mën a doon wala japp ni yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama dana amuk sàggan wala ak ñàkk xam ci ku aju ci moom ak lu mu sori sori ndax képp ku aju ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama te kenn doxul sa digg ak moom mel ni ni ma aju ci moom ginaaw bi ma teqali koog mbooleem yi may gàllankoor ci moom faw mu am la muy sàkku te kenn du ko yedd ko aju ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa te jaare ko ci kenn lu mu sori sori teewul jàpp na bu dër ci moom su ko defee am murit li koy xamal lañu ko tànnal benn muy boroomam wala ab sëriñam képp ku xamul lañu ko tànnal ci pas-pas yi ak wax yi ak jëf yi ak jikko yi nan la leen di mën a taqoo képp kuy taqoog lañu ko tànnal bu wér ci yooyu faw mu àgg ci yàlla subhanahu wa taala xaajoom yépp faju ci ludul ak woru wala ak jayu wala pexem boroomam subhana rabbika rabbi xisati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi xaadaloo wala maxtaaloo ginnaaw bi mu jullee ci yonte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee wax bismillahi rahmaani rahim sunna la ci képp kuy jëfandikoo dara wala muy naan bu dee lu ñuy lekk bu waxee bismillahi rahmaani rahim da ciy dolli allahuma barik lana fi ma rasaqtana wasidna xayran bu dee soow mu ni allahuma zidna minhu bu dee ndox bu naanee ba noppi wax lii alhamdulillahi allasi jaalahu hasban furatan wala ولم يجعله ملحا أجاجا bisunubina. wala bi adlihi sopp nañu kuy kuy wax bismillahi rahman rahim mu wax ko ca kaw ndax ku ko dégg fàttaliku ko boo ko fàttee bi ngay tàmbali da ngay wax bismillahi awwalan wa axiran wala bismillahi fi awalihi wa axirihi boo ko fàttee ba noppi da ngay jang suratul ixlaas kon seytaane day waccu la mu lekkoon lépp ànd ko yow bu fekkee da ngay rendi moom day war ci yow nga wax bismillahi rahman rahim sopp nañu boo dee war wala ngay yéeg ci luy dox nga wax rahim alhamdulillahi allasi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin bu dee gaal nga wax bismillahi mujreha booy wàcc wax bismillahi mursheha boo waree daaba wax سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون daabo ji dalay wax ni topp nga yalla subhanahu wa taala te woyof nga ci sama ginnaaw yàlla na na yàlla defal barke antul say haajo boo dee dugg ci kër da ngay wax bismillahi rahmani rahim alham allahuma inni as'aluka husnal mawlidi boo dee génn wax allahuma inni asaluka husnal maxraji boo dee dugg ci jàkka da ngay wax bismillahi rahmaani rahim allahuma aftah li abwaaba xikmatik boo dee génn wax allahuma iftah li abwaaba nixmatik sopp nañu boo solee lu yees nga wax lii bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allati kasaani ma uwaari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati min khayri hawlin minni wala quwwatin allahumma inni as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lahu yonte bi sallallahu taala alayhi wa wa sahbihi wa sallam neena na ko wax sunu borom jegal ko la jitu ci bakaram boo dee summi sa yére wala ngay ubbi ab buntu mom bismillahi rahmanir rahim rek ngay wax do ci doli dara bodo bolo ak sa soxna da ngay wax bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma arsaqtana bo demé bay wàcce man ni wax li ci sa xol te bañ ko wax ci saw làmmiñ alhamdulillahi allati khalaqa min al-ma'i basharan fa nasaban wa si'ala wa kana rabbuka khadira sib nañu kulaal soxnaam ba nopi diko laalat te raxasul pëyam ba noppi ku koy def sopp ñu ci moom ñaan yi ma wax sopp na ci imaam buy yéeg ci kaw min bar mu wax bismillahi rahmaani ak buy wàcc naka noonu kuy gëmmal am néew te wax lii xansa ma waxadana allahu wa rasuluhu naka noonu kuy dugal am néew ci bàmmeelam te wax lii allahumma إن صاحبنا قد نصل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن حسابه نكنو نكوي دوغتي وانك نوخلي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بوي ген وخلي الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني نكنو نكوي سوتش yi yëpp ci yonante bi la jóge sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama loolu mi ngi ci diwaani jasaaw sakkoor xatu téeméer ak ñeent muy cent neuf wallahu alam sëriñ bi xaadalao xaadalawoo laahu maxtaar lawoo bi mu musloo ci saytaane ba noppi julli na ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñaan lii muy bëgg a wax doon luy leeral xoli ñi aju ci moom di leen àggale ci yàlla subhanahu wa taala daa di ni lii may dénkaane ku ko topp dana la jariñ soril la ak texee di ak woru naka noonu ku koy yër ndax ci xam-xami yàlla yi la bokk ak i mayam bu leen lekk lu haram lu haram mooy loo xam ne nii liggéeyoo ko kenn joxu la ko hadiya kenn saraxu la ko jëndoo ko donnoo ko ak yu mel noonu te mooy loo sàcc wala loo fëkk wala loo laaj ci lu dul aaja woogu tar li tax ma leen tere lu xaraam moo di jëf yu baax yi kuy jëfandikoo lu xaraam du leen man naka noonu kuy jëfandikoo lu lënt képp kuy jëfandikoo lu xaraam lu xaraam rek lay mën a def bu bëggoon a topp yàlla sax subhanahu wa taala du ko man maa ngi ñaan sunu borom defal nu tawfiix ca la munu tànnal sàkku lu lew ak jaamu yàlla la subhanahu wa taala ndax ak njub ak topp yàlla subhanahu wa taala ci lekk lu lew la ñuy mën a amee moo tax jiital wut lu lew farata la ku ko am itam war na koy bañ a yàq ndax néew na lool ci jamono ji nu nekk lépp lu amul njariñ dee leen ko moytu te mooy moy yàlla subhanahu wa taala ak caaxaan caaxaan day juri lor képp képp ku bëgg a àgg ci yàlla subhanahu wa taala war nay tarlu ci ndigari di leen gaawe bokk na ci li amul njariñ wax ju dul tudd yàlla subhanahu wa ak lu ko nuru ak xool ci lu dul xaajo ak lekk ci lu dul xiif ak tukki ci lu dul soxla su wér ak bépp yëngatu bu amul njariñ bokk na ci li am njariñ julli juróom ak naafila ci julli walla woor ak mbooleem yu war yi ak yi ñu sopp bokk na ci li amul njariñ bëgg aduna képp ku woote ak bëgg yàlla subhanahu wa taala te bëgg aduna day fen ndax ku bëgg kenn lépp lu mu bañ da nga koy bañ lu mel ni wut aduna ak bëgg ko ngir loo xam ni ci yàlla subhanahu wa taala lay dellu loolu du bëgg aduna bëgg yàlla la subhanahu wa taala akub yonanteem sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ndax bëgg li lay àggale ca la nga bëgg day xamle bëgg loola dee leen wut xam-xam képp ku bëgg a jaamu yàlla subhanahu wa mënta ñàkk muy jàng ba xam jaamu yàlla subhanahu ñaari xeet la bu feeñ ak bu nëbb bu feeñ bi moo mel ni julli ak woor bu nëbb bi mooy wéetal yàlla subhanahu ak yi ci aju su ko defee tayyeel mi ngi faral di jóge ci lekk lu xaraam wala yanu ci jaamu yàlla yi loo attanut wala yanu ci jaamu yàlla yi loo attanut bokk na ci ak waru xam te doo jëfe di waaru te doo jaamu di jooy te doo farlu yépp seytaane da ci ware nit bu leen bañante bu leen iñaanante bu leen xëccoo yooyu yi day waral ngeen sori yàlla subhanahu wa taala xëccoo ci mbirum adduna day yàq jëfi àllaaxira képp ku yàq jëfi ëllëgam ci tey bu ëllëgee du njariñu dee leen jàng alxuraan ngir jëmm yàlla subhanahu wa dana dox seen digg ak noonu yàlla yi subhanahu wa dee leen takkook lañu leen tànnal ndax ci la lépp lu baax nekk ku ko dul def seytaane day ànd moom dee leen topp seenu sëriñ lu mu leen digal ngeen di ko def képp ku feral boppam ci lu dul ndigalul ab sëriñam dana am gàcca dee leen taqoog seeni sëriñ bu ñu jigee bu ñu soree itam ngeen di topp lañu leen digal ab sëriñ du wuuteeg yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax ku topp ndigalam jariñu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ci diwanu jasaw sakoor xatu temer ak fukk ak ñeent muy cent quatorze wallahu alam sëriñ bi xaada lahu allahu maxtaar lahu bi mu del bi mu bi mu delloo nuyoo bi ci wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu la wax ni da ngay laaj maanaam aaye bi falawla in kuntum gayra madinin tarjiunaha in kuntum sadiqin sunu borom subhanahu wa taala moo wax ak yéefari ñoom ñi nga xam ni gëmuñu bis penc gëmuñu alxuraan di leen wax ni bu ngeen njottee ni dekke du am hisab du am kenn du fay kenn lu tee bu nit kuy bëgg a faatu ci yéen te ngeen sopp ko ngeen téye ko ba mu bañ a génn adduna ba tey loolu nga may laaj ci waxe yonante bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sabi wa muy allahuma la yudrik ni zamanun wala yudriko samanan la yutba'u fihi alalimu wala yustahya fihi min alhalim qulubuhum qulubul aajimi wa alsinatuhum alsinatul arab yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sahaba yi lay waxal radiyallahu taala anhum di leen ñaanal ak mucc di ko ñaanal boppam kon waxin wi xamal ni waxinu ñaan la bu ne wala tuddi ko samaanan day mel ni ku naan maa ngi ñaan ngeen bañ a taseeg jamono joo xam ni nangam assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu loolu mi ngi ci diwaan jaw sakoru xatu cent quinze muy témèr ak fukk ak juroom sëriñ bi xaada lahu allah makhtar lahu neena na yalla subhanahu wa taala xaraam na te teres na ko ci wépp wer waaye day gën a feddali ko ci ramadaan nee nañu yawmal xiyaam dana am ab jaam boo xam ni malaaka yi alayhimu salaam dañu koy dóor ba mu daw laxasu ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama su ko defee yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam laaj lan moo doon bakkaaram ñu ni ko daa mooy yàlla subhanahu wa taala ci weeru koor yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bëgg koo ramu ñu ni ko bàyyi koog ramadan mooy xulóog moom su ko defee yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ni man seet naa ci koo xam ni ramadan mooy xulóog moom nee nañu am na ab yéefar bu mas a gis doomam muy lekk ci bëccëgu ramadaan ci kanamu julli ñi mu dóor ko ni ko doo sàmm xormay julli ñi ci ramadaan bi mu faatoo ci ay bis am ku ko gént mu nekk ajjana mu laaj ko ni ko xanaa nekkoo woon ab yéefar mu ni ko axa kay waaye bi may bëgg a faatu la saa borom teral ci lislaam ngir li ma war maan ramadaan yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na nañu nee dañuy tijji bunti asamaan ak bunti ajjana ci guddi gi njëkk ci ramadaan ba weeru jeex képp ku sujoot ci ramadaan benn sujoot sunu borom subhanahu wa taala bindal ko junni yiw ak juróom ñaari téeméer tabaxal ko ci ajjana néeg boo xam ni wurus lay doon ak juróom ñaar fukki junni bunt yoo xam ni wurus lay doon képp ku woor bis bi njëkk ci ramadan sunu boroom jéggal ko bakkaaram yépp bis boo woor ci ramadan sunu boroom subhanahu wa taala tabaxal la kër gu rëy ci àjjana goo xam ni dana am junniy bunt lu mat juróom ñaar fukki junniy malaaka dañu lay jéggalul ba jant bi so bépp sujjóot boo sujjóot moo xam guddi la wala bëccëg da nga ca am garab gu rëy ci àjjana garab goo xam ni ku waroon di dox ca ker ga téeméeri at du ko jeexal ba tey yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa nee na ab jullit bu yeewoo ci ramadaan di wëlbatiku ci lal bi mu tëdd tudd yàlla subhanahu wa taala malaaka mi da ko naan yal nan la yàlla yërëm bu jugee lal bi da koy ñaanal ay lal yu kawe ca ajjana bu solee ay yére da koy ñaanal ay yére ajjana bu solee ay dàll da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala dëgëral ay tànkam ca siraat bu yootoo ndab da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala jox ko ca koppi ajjana bu dee jàpp ndox mi da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala seetal ko ci ay bakkaar bu taxawee di julli néeg bi da koy ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala leeral bàmmeelam yaatal ko bu boobaa nag sunu boroom subhanahu wa taala da koy xool ni ko yaay ñaan maay wuyu ba tey yonente bi salallahu taala ali bi alihi wa sahbi wa sallama nee na nelawi ku wor ak jaamu yalla la subhanahu wa taala ay noyeem sàbbaal la lu mu ñaan am ko bàkkaaram yépp dañu koy jéggal ay jëfam dañu koy ful bokk na ci li ñuy sopp lool ci ramadan naafile yi la gën a rafet mooy fukki rakka ak ñaar daa di wittar képp ku mokal alxuraan te amul ngant na jàng lamu man ci rakkaa yooyu ku matal lim bi ba noppi mën naa dolli lu ko neex ci naafile yi ci biir guddi gi wala bëccëg ndax naafile ci weer koor bari na lool ay ngeneel naka noonu képp ku woor ci ramadaan war nay sàmmonteeg julli mbooloo te takkoo jataay si kari tey topp ay way juram di leen lëggéeyal bu fekkee ñi ngi dund buñu faato itam mu leen di ñaanal neenañu képp ku teewe jataayu zikkar ci ramadaan sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bindal ci bépp jéego jaamuk am at te bu ëllëgee ca kerok aras lay toog ànd ak yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam képp kuy taqoo julli mbooloo ci ramadaan sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bindal ci bépp rakka ab dëkk ca ajjana boo xam ni leer lay doon ku ci topp ay wayjuram ci limu man sunu borom subhanahu wa taala dana ko yërëm te mel na ni ku yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam yoral boppam gaddul ko boppam bokku na ci li war jigen ci weeru koor muy shakku ngeeramul borom këram jigen ju koy def dana am bay maryama ak asiya alayhima ridwanullahi taala naka nonu di farlu ci faj haajo nit ñi ku ci dox ngir xaaju jullit faju sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bindal ci bépp jéego juróom ñaar fukki yiw faral ko juróom ñaar fukki ñaawteef yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena amna mindeef yoo xam ni sunu borom subhanahu wa ta'ala da leen a bind ngir xaajoy nit ñi nit ku am xaajo ci ñoom lay daal di ñëw ñooñee sunu borom du leen bugal ba tey nee nañu képp gépp julli farata goo julli ci ramadan mi ngi mel ni gooreelub jaam mi ngi mel ni juróom ñaar fukki julli ci lidu ramadan weer la woo xam ni gi julli ñi da ciy yokkoo képp ku jox ab jullit lu mu dogee ci ramadan mel na ni goreel na ab jaam tàmbulib ramadan yërmane la digg bi ak njëggal mujj gi ak goreel ci sawara képp ku jox ab jullit lu mu doge ci ramadaan muy lu lew lu mu faggu malaaka dana danañu julli ci moom ñaanal ko ba ci sayyiduna jibril alayhi te dana ko jox loxo képp ku woor war nay téye bu baax cem yépp ci bànneexi ak mooy yàlla subhanahu wa li tàmbulee xaruk fajar ba jant bi so bu dee lu mel ni bànneex yi moom bu jant bi soxee dana dagan waaye mooy yàlla subhanahu wa taala dëgganul ci ramadan dëgganul ci waneen weer bu ramadan masaana dugg lii la yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama daan wax allahumma sallim ni li ramadana wa sallim li ramadana wa sallimhu minni wa sallim nii minhu waj'alhu mutaqabbalan ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na ramadan mooy xolub at mi bu sellee at mi lépp sell képp ku jàng suratul fatihi ci guddi gi njëkk ci ramadan sunu borom subhanahu wa taala dana ko wattu ci at mépp su ko defee del gaaw a dog bu jant bi soxee tey yéex a xëdd bu guddi gi des tuuti bul lekk lu bari bul naan itam lu bari del téye saw làmmiñ ci waxi caaxaan tey sàmm say bët boo dee dog wax lii allahuma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wabtallat al uruq wa sabbata al ajru insha allah taala boko ko nga jital tandarma amna na barke lool boo amul nga naan ndox ku doge tàndarma buy julli danañ ko dolli ñeenti téeméeri julli ci ak julleem wala boo ko amul nga doge lu saf suukar ba tey dee leen farlu ci sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tey moytu bi daa yi nga xam ne saytaane képp lay juge yi nga xam ni ci saytaane képp lay juge yàlla na nu yàlla jubal jubal leen teg nu ci siraatal mustaqim ba nu texe texe goo xam ni dootuñu texeeti mukk faww amin ya rabbal alamin loolu min ngi ci diwaanu jasaa'u shakoor xatu téeméer ak ñaar fukk ak benn muy cent vingt et un wallahu alam sëriñ bi xaada la wallahu maxtaar loo bi mu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi wa sallama mi nga xamal sëriñ ahmadu mi doomi sëriñ muusa am nu yoom ak di ko ñaanal di ko xamal ni gis na bataaxal bi mu ko bind mu bari ay laaj lool mu tontu yent mu tontu yenn laaj yi bàyyi yenn yi ndax sunu borom subhanahu wa taala mën a jariñ ñépp ci li muy tontu faawu ginnaaw loolu la wax lii li ngay laaj ci melaw xaras ak kursi yu naan xoolal te wax ma nu mu mel li ma lay tontu moo di xaras mënuma koo dogu ci wax la dëgg-dëggam li lay tontu moo de xaras mënumaa dogu ci wax la dëgg-dëggam waaye boroom xam-xam yi nee nañu lu rëy la loo xam ni ci wurus la ko sunu borom binde mu nekk ca kaw juróom ñaari asamaan ak kaw kursi am na junni junni bopp bopp bu nekk am na junni junni kanam ak juróom benn téeméeri junni kanam kanam gu nekk am na junni junni làmmiñ ak juróom ak ak juróom benn téeméeri junniy làmmiñ làmmiñ wu ci nekk day sabbaal sunu borom subhanahu wa taala ci junni junni làng làng wu ci nekk sunu borom subhanahu wa taala da ciy bind mbindeef mu koy sabbaal ca yooyee làkk ba tey kursi yu mënumaa dogu ci wax la dëgg-dëggam waaye borom xam-xam yi nee nañu jëmmi leer la takk ca xaras am na ñu wax ni jëmmu la ju rëy nekk ci kaw juróom ñaari asamaan yi ceroon aras am nañu wax ni ci wurus lañu ko bindee am na ñu wax ni aras tànkam bu ci nekk guddi na ni juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf yi allahul mahfuus nag yal na nu yàlla xamal ci moom ay xam-xam maag yow moom mi ngi ci kaw juróom ñaari asamaan yi lañu la njëkk a bind ci moom moo di man maa yàlla amul benn buur bu dul man muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam samab jaam la samab yonente la maa ko tànn képp ku nangu samab dogal di mucc képp ku nangu samab dogal di muñ samay nattu di sant samay xéewal danaa ko bind muy siddiix dekkal ko mu ànd ak siddiix yi yowmal xiyaam tabbal ko ajjana ku nanguwul sama dogal muñul sama nattu santul sama xewal na genn ci ron sama asamaan te wut beneen bu wóor bu dul man koddaayu lawul fos tol na ni diggante asamaan ak suuf juróom ñaari yoon saa takk ca xaras wala daa takk ca xaras lépp lu war a am ma nga ma nga ca ba bis penc manam guddaayu lawhul mahfuz tol nañu diggante asamaan ak suuf juróom ñaari yoon daa taq ca haras lépp lu war a am ma nga ca ba bis penc ba tey lii nga laaj bokk na ci li ma gën a bëgg ndax maa ngi ci yaakaar tuyaaba ci sama bopp ak ci yow ak ci képp ku ko gis nan sant yàlla subhanahu wa taala ci soppante ginu soppante ngir yàlla subhanahu wa taala bay sàkku ay dénkaane ak waare yooyu bokk na ci ci yi ma yàlla subhanahu wa taala may danaa la ci tuddal dara insha allahu taala li ngay laaj lan la sunu borom njëkk bind am na hadis bu wér bu wax ni sunu borom subhanahu wa taala da bind ak garab gu am ñeenti car tudde ko sajaratul yaqin bind leer yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu mel ni lu nekk ci wurus yor jëm mi picc mi ñuy wax jëmmu teg ko ca kaw garab googu muy sabbaal lu mat juróom ñaar fukki junni at sunu borom subhanahu wa taala bind seetub kersa teg ko ca kanamu picc moomu bu mu xoolee boppam ak ni mu taaroo daa rus daa rus yàlla subhanahu wa taala ba sujjoot lu mat juróomi sujjoot sunu borom subhanahu wa taala bind ci juróomi sujjoot yooyu juróomi julli juróomi julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama aku xetam maam da ci daa bindi juromi julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama aku xetam. sunu borom subhanahu wa taala xol ko mu ñak ngir kersa sunu borom subhanahu wa taala bindi ci ñak wi jóge ci boppam malaika yi alayhi salaam bin xaras ak kursi ci ñak wi jóge ci kanam gi naka noonu lawhul mahfuz ak kalima ga ak jant bi ak weer wi ak bidd wi ak mboolem li nekk ci kaw asamaan bind yonante yi alayhimu salaatu wasalaam ak boroom xam-xam yi ak ñu baax ñi ak ñi ci xare yi ci ñaxta wi jóge ci dënn bi bind baytul baytul maamur ak kaaba gi ak baytul muqaddas ak jàkkay yonante yi alayhimu salaatu wasalaam ci ñaxta wi jóge ci ndigg li wala digg bi bindi jullit yu jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ci ñaq wi jóge ci ci yéen yi bind yahood yi ak nasaraan yi ak yéefar yi amul téere ci ñaq wi jóge ci ñaari nopp yi bind suuf si ak li ci nekk lépp ci ñaq wi jóge ci ñaari tànk yi daa di wax xoolal yow leerug Muhammad alayhi sallallahu taala alayhi wa sallam ci sa kanam mu xool gis leeru abo bakrin omar usman ali radiallahu taala anum mu sàbbaal lu mat juróom ñaar fukki junni at sunu borom subhanahu wa taala door a bind ruuxi ruu yépp wax la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi taala alayhi bialihi wa sabi wasallam sunu borom defar lu mel ni ab lamp bu rafet dec ci picc moomu yor melaw yonente bi sal allahu taala alayhi bi alihi wa sahbi mu nekk ci adduna ruu yépp war ko sabbal lu ma téeméeri junniy at sunu borom subhanahu wa taala wax ruu yi ñu xool melow picc moomu ñoom ñëpp xool ko am na ñu gis bopp ba nekk ay xalifa am na ñu gis jëba nekk buur yu maanu am na ñu gis ñaari bët ya nekk ñuy mokkal waxi yàlla subhanahu wa am na ñu gis ñaari nopp ya nekk ñuy dégg am na ñu gis ñaari lex ya nekk ñu am xel tey rafetal am na ñu gis bakkan ba nekk ñu bari ay xekkam te maandu di ay fajkat am na ñu gis ñaari tuñ ya nekk ay jaraaf am na ñu gis gimiñ ga nekk ay woor woorkat am na ñu gis bañ ya nekk ñu rafet kanam am na ñu gis bulli ga nekk ay waarekat yu laabiir ak i noddukat am na ñu gis ñaari yaxi sikkim ya nekk ñuy jihaad ci yoonu yàlla subhanahu wa taala am na ñu gis làmmiñ wa nekk ay yonante am na ñu gis mbaggum day jooram nekk ay mooy ba tey lim ci teg daa ñëwut am na ñu gis ñaari përëg ya nekk ay warkati fas am na ñu gis përëgub ndey joor ba nekk ay namputalkat am na ñu gis përëgub càmmoñ ba nekk ñu réer am na ñu gis biir tenxul ndeyjoor ba nekk ay mooy ba tey lim ci lii dafa dafa li leerut moo tax yooyu sax def na ko mandarga kon am na ñetti bërëb yoo xam foofu ña gis ñaari yéen ya lañ nekk foofu waxu ko ña gis mbaggum ndeyjooram ñam nekk woon ko ña gis tenxul ndeyjoor ba mooy ba tey lam nekk daa mel leerut ci mool bi am na ñu gis tenqulu càmmooñ la nekk ay nattkat am na ñu gis ñaari loxo yépp nekk ñu tabe te yeewu am na ñu gis ginnaaw tenqul càmmooñ ba nekk ñu nay am na ñu gis baaraamu loxo càmmooñ ba nekk ay tëggkat am na ñu gis ginnaaw ga nekk ñuy toraxlu am na ñu gis ñaari wer ya nekk ñuy xare am na ñu gis biir ba nekk ñu doylu te dëddu am nañu gis ñaari bëti woom ya nekk ñuy rukkoox di sujjoot am nañu gis ñaari tànk ya nekk ab rëbbukat am nañu gis ay keram te mooy takkandeer ba nekk ay waykat am nañu gisul ci moom dara nekk ay yahood ak i nasraan ak majjoos ak ñu gëmul dara am nañu nangu wuta xool nekk ñuy woote ak yàlla ñuy woote ak yàlla yal nu yàlla subhanahu wa taala def maag yow nu bokk ci ñi gëm yàlla subhanahu wa taala te jub ba tey loolu nga doon sàkku ci ay waare te ma waxoon la léegi danaa la ko andil moo nekk nii yal na nu yàlla jàppale defal nu tawfiix jubal nu yow sama mbokk muñ bokk na ci li gën ci mbooleem ngëneel yi ginnaaw ba musiba dikkee ginnaaw bu musiba dikkee daal nga muñ bokk na ci gën sunu borom subhanahu wa taala nee na danaa leen nattu ci am tiit ak xiif ak ñàkk ak tawat ak bekkoor waaye ñi muñ nañu bég ba tey yonante bi ba tey subhanahu wa taala nee na maa ngi ànd ak ñi muñ yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na muñ dëgg-dëgg ma nga ca fa mu lay door a dale am na ca mag ña ko wax ni bi ñuy wax ab kat mooy koo xam ni lu ko nit ñi def mu muñ ko du fayu ci saahir du fayu ci baatin du leen ñaanal itam aw ay ci yàlla subhanahu wa taala muñ gi nga gi gën a màgg nag moo di muñ li la sunu boroom di tere ba doo ko def tey taqoo la mu lay digal am na ci nit yàlla yi ko wax ni musiba dana topp ab jaam di ko raxas ba dootu dese benn bàkkaar sayiduna Musa alayhi salaam mas naa romb koo xam ni rab yi dañu koo lekk bënn biiram te fekk xamoon na ko mu laaj boroomam ni ko kii daana topp yàlla subhanahu wa taala lu waral li subana sunu boroom ni ko dama ñaan daraja ju mu mënta jëf mën nattu ko ci lii ngir jox ko ko nit yàlla yi daje nañu nangu ni kuy jàmbat musiba ci kudul sunu borom dootu amati neexitu jaamu yàlla li feek sunu boroom jéggalu ko sunu borom subhanahu wa taala masna wax ab yonante bu ñuy wax hasis moytul bu ma la tege musiba nga may jambat ci sama minde yi del ak man ni may ak yaw sa bo jëfee jëf ju melul nona du ma la ci samay malaka naka nonu bu ma la tegee am nat bu ma jambat ci sama min ci sama minde yi am na ci nit yalla yi ko wax ni ayyuba alayhi salaam ba alalam ja ko lepp daa dugg ci am negam summi ay yereem ni nii la ñewé won aduna nii lay génné aduna sunu borom subhanahu wa taala masna wax dawud alayhi salam coono bo am delu muñ kon da nga am nimbal ba tey mas na ko wax bo de wommatu ci lima ma bëgg dana la doy ci li nga bëgg boo dul ci lima ma bëgg dana la sonal ci li nga bëgg te li ma bëgg rek mooy am